الذي أنعم علينا بالإيمان وفرض علينا الصوم رمضان لنيل الرضا والردوان من الملك الديان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi ddin ama baad fa ya ibadallah alamu minnata allahi alaykum bi hada addin wa ma tafaddala alaykum bihi min alxayrati min alibadati wa mawaasimu alxayrati qaala subhanahu wa taala qad manna allahu alaykum ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qabli la fi dalalin mubin ayuha almuslimun innana bayna yaday mawsimin min mawsimi alxayri walbarakati ixtasahu llahu bihi ma shaa min fadlihi wa karamihi fa ansala fihi xayra kutubihi ala afdali rusulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam farada allahu alayna siyaamahu wa sanna lana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam qiyaamahu innahu shahrun tuftaxu fihi abwaabul jinaani wa tuxlaqu fihi abwaabu niiraani wa fihi leylatun xayrun min alfi shahri ayuha almuslimun inna shahran bi hadihi almusaabati wa mawdiman bi hadihi almuhaabati la jadirun bi an yatasaabaqa fi istiglalihi mubtaqiyan aljannata wa tulaabuha wa raaxibuuna fi xuuriyaatiha wa xutaabuha ayuha alixwa inna salafuna alsaalix kaanu fi ramadan kama huwa mudawwanun fi inda alkutub almudawwanati bi asaanidi saaqati xaalun cajibun wa lahum fihi maqaamatun muhibatun innahum kaanu yatasaaluuna allah subhanahu wa taala an yuballigahum ramadana qabla an yadxula wa dalika lima yaclamuuna fihi min alxayri alazim wa nafci alcamim thumma innahu ida daxala ramadanu yatasaaluuna allah subhanahu wa taala an yuciinahum ala alcamali alsaalixi summa ida intaha ramadaanu yatasaaluuna allaha an yataqabbalahu minhum fa hum kama qaala subhanahu wa taala walladina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'uun ulaa'ika yusaari'uuna fi lxayraati wa hum lahum wa hum lahaa saabiquun ayyuha al-ixwa innahum kaanu yajtahiduuna fi lamali wa yattahumuuna bilamali bahda an yuqbala minhum am la hal yuqbalu minhum alamal am la wa lidalika liilmihim biazamati illahi jalla jalaaluhu wa bi annahu subhanahu wa taala laa yaqbalu min alacmali illa ma kaana xaalisan liwajhihi wa sawa wa sawaaban ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kaanu yakunuuna wa kaanu laa yuzakkuuna anfusahum wa kaanu yaxshawna min an tabtula acmaalahum li anna allah subhanahu wa taala yaqulu fi kitaabihi aljalil innama yataqabbalu allahu min almuttaqin inna salafana alsaalih min alsaxaabati waltaabicina wa awliyaullahi alsadiqin alsalihin alayhim ridwanullah alayhim jamian kaanu yatafarraguuna fi shahri ramadana lilcibadati wa yataxallaluuna min alacmali aldunya wa yuwaffiruuna alwaqta liljuluusi fi buyuti illahi subhanahu wa taala wa yaquluuna naxfazu sawmana wala naxtaabu axada wa yuxadiruuna almasaxifa wa yatadaarasuuna alkitaab allahi subhanahu wa taala kaanuu yuxaafiduuna awqaatahum min addiyaaci wa maa kaanuu yuhmiluuna aw yufarrituuna kama alayhi xaalu kathirun minna alyawm bal kaanuu yaxfaduuna awqaatahu fi lleyli fi lleyli yaquumuuna qiyaama alleyli wannahaari bilsiyaami wa tilawati alqur'ani wa dhikri llahi subhanahu wa taala wa acmaali alxayri fama kaanu yufarrituuna fi daqiqatin aw lahdatin minhu illa wa yuqaddimuuna fiha amalan saalixan nasalu llah subhanahu wa taala an yuciinana wa iyaakum ala iqtidaai bihim ayuha almuslimun taammaluu wa tadakkaruu fa kam min axin karimin wa xaribin xabibin kaana maana fi ramadan almaadi yasuumu wa yaquumu walakinahu alaana xabiisu turaabi qad faaraqa alahla wa alasxaaba faman faman yadri faman yadri nahnu hal nahnu nabluqu ramadana am nuwaddicu الدنيا كما ودعه الذين سبقوا يا أيها الإخوة إنه ينبغي لنا أن نستقبل رمضان بأمور قد جاءها ديننا وعمل وعملا كان يعمله الصالحون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم alhamdulilahi subhanahu wa ñu ngi sant yàlla bu baax li nga xam ne moom lañu yàlla baaxe te mooy mu jox ñu weer bi gën ci weer wi waaye mu jox ñu li gën ci weer wi te mooy alquranul karim nga xam ne yàlla subhanahu wa ci weer wii nga xam ne ci la ñu jub ci la yàlla wàcce weeru koor bi xutba bi li muy résumé mooy di ñun jullit am na noo xam ne mooy saxaabatul kiraam ak nit ñu baax ñu topp seen ginnaaw dafa am nuñ doon waajale weeru koor est-ce que ñun noon la ñuy waajale weeru koor walla déet daañu ñu kontaan daanañu békk bu ñu ne weeru koor a ngi ñëw est-ce que ñun noonu la ñuy waajale weeru koor walla déet daanañu tiit bu weeru di ñëw daanañu jaaxle bu weeru koor di ñëw lu tax mooy am na ñoo xam ne wooroon nañoo ñoom daaw waaye ñooñu tey suuf sang na leen am na ñoo xam ni ci ñun kenn ci ñun xamul ndax weer wi dina la fi fekk walla de loolu nag bu ñu ko xamoo ñoom ci la ñu doon profitoo lépp loo xam ne moo mën a yàqal nit ñu tuub ko defe naa ustaas bi doon wax léegi ustaas Fall am na ay point yu mu ci laal yu am solo dafa bokk ci li nga xam ne moom la nit ki war a préparer weeru kooram waaye du ñu koy préparer ci suñu société bi mbokk yi bu ñu nax suñu bopp ku seetlu ci télévision yi fan yi paase da yég yëg ne télévision boo ci gis mu ngi sélectionné ay séeri yoo xam ni ban moment lañuy teg série yi mooy bu ñuy waaj a dog te mbokk yi bu ñuy waaj a dog dafa am ay ñaan yu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne bu ñuy dog nañu ñaan ñaan yooyu waaye bu fekkee ne danga toog ci sa kanamu télévision série bi ngay seetaan ñuy wax ay nax sa bannang di wax ay caaxaan ngay reetaan di reetaan boo da ngay jékki-jékki rek dégg ñu naan dog jot na dootoo tala ñaan dangay jël sa tàndarma rek wala nga jël sa ndox rek naan ñàkk nga la nga xam ne moom la la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam baaxe woon mag ñi daanañu préparé ci ñaan boo xam ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana ko ñaan bu weer wi di waaj a ñëw daana ñaan bu weer wi fenkee yonent bi daana wax ne yow yàlla yal na nga ñu defal rajab ak shaabaan barke waaye yal na nga ñu mottilil ba ñu mën a fekkee weeru ko est-ce que dinañu ñaan loolu est-ce que dinañu ñaan loolu seyduna muhammad sallallahu bokk na ci lim doon ñaan bu weer wi feeñee li ñu njëkk a def mooy jàkkarloo ak weer wi ne allahumma ahilu alayna bilyumni wal imaani wassalaamati wal islaami rabbi wa rabbuka allah rawaahu ahmad dafa doon ñaan moom seyduna muhammad su weer wi feeñee moo xam gis nga ko wala gisuloo ko dañ la ko wax génnil nga jàkkaarloo ak weer wi ne yow yàlla maa ngi lay ñaan weer wii yal nan ko delloo siwaat ci man mu ànd ak barke ak yomb-yomb waaye mu ànd ak ngëm yàlla ndax lu tax mooy alqalbu bayna usbu'i bi yow sa xol bi yàlla daf ko kepp ci ñaari baaraam waxin la yàlla amule baaraam comme suñu yos mu ne daf koy wëlbati su ko soob mën nga nekk julli tey yàlla ñu ci yàlla musal balaa ngoon yàlla wëlbati sa xol nga nekk leneen mu ne kon yàlla yow mi mën a wëlbati xool yàlla bul wëlbati sama xel muy gëm keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala waaye nanga ko delloosi ci ñun fekk ñu am jàmm ndax booy woor di dem jàkka di julli di naafila guddi na fekk nga am jàmm kon nanga ko boole mu ànd ak jàmm wal islaami diina lislaam bi ma nekk yàlla nga def ma sax ci ba ilaa yawmal qiyaamati mu ne nag weer wi man mii taxaw di jàkkaarloo yëg yu la xool yàlla mooy sama borom waaye yow mi nga xam ne yaa nekk ci kaw yàlla mooy sa borom ñun ñaar ñëpp kon ñaareel bi mooy nga war a fexe bu weeru koor bi ñëwee nga profité ci teral koo mën a teral ci yiw ak mbaax waaye nag nga fexe balaa ñuy wax dara képp koo xam ne amaloon nga ko àq nga fexe ba delloo ko àq bi te ñun mbokk yi nañu waxante dëgg ñun ñépp ci lor suñu mbokk dëkkandoo lañu la nekk te loolu ngay woor ba noppi di lor sa moroom ci wax di lor sa morom ci caaxaan di lor sa moroom te xoolal bàyyi ngay wax nga ne ñun ñépp ñoo yem yàlla xool rekk lay fay xoolal yàlla ñi muy innama yataqabbalu llahu min al muttaqin ñi yàllay nangul mooñ ki ragal yàlla te koor gi dafa ñëwoon pour defar nit ki pour defar la ba nga xam ne da ci jëlee lu ñu tuddee taqwallah ndax laallakum tattaquun moo taxoon ñuy woor waaye wooruñu woor rek ngir xiif ak mar te Seyduna Muhammad moo waxoon ne képp ku bàyyiwul waxu saaxaan wala nga di ko def ci wax wala caaxaan bu mënti doon nee na da xam ne yàlla soxlawul amul dara loo xam ne jëlee nga ko sa koor gi lu dul xiif ak mar mbokk yi bu ñuy woor dañuy woor waaye wóoruñ pour xiif ak mar mais dañuy woor ndax bu ñu ci jógee ñu am taqwallahi subhanahu wa taala kon alhamdulillahi alladi anamana bi nicmati shahru ramadan almubarak nadcu la subhanahu wa taala an yucidahu alayna acwaman mutaaddida wa naskuru llah subhanahu wa taala an yuwaffiqana bima yuxibu wa yardahu allahuma inna nasaluka alxayra walsacaadata fi daarayni fi dunya wal axira allahuma inna nasaluka cilman nafian wa xalban xaashian wa risqan waasiaa wa gina an innaas wa shifa min kulli daa wa nasru ala alaadaayi wa najaatu min annaar wa ridaaka yaa xafaaru wa nasru ila wajhika alkarim fi jannati naim allahuma habib ilayna alimana wa zayinu fi qulubina wa kari ilayna alkufra والفسوق والعصيان وجنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق naasir xaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari alazim aqulu qawli hada wastaxfiru llah li wa lakum qumu ila salatikum laalakum turhamun